asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Ndokh TV tey nag damaa ñëwoon fii ci zawiya Seydil Xaaji Malick Sy bu Ndakaaru mbokk yi gis ngeen ko zawiya Seydil Xaaji Malick bi fii mu nekk ci digg xolu Ndakaaru la ko Seydil Xaaji Malick def foofu noonu ngeen seen fi gouverneur dëkkoon Seydil Xaaji Malick ñëw ba ci biir kër gouverneur mu samp fa zawiyaam boobu Naasiril Xaq bil Xaq guddeeg bëccëg subaa ngoon fajar di wazifa di xadara laa ilaha illa allah muhammadan rasulullahi foo toll di dégg ngir jëmmi Seydil Hadji Malick mbokk yi gis ngeen rue baa ngi noonu di ci biir di digg xolu Ndakaar Mam Maodo borom korosal bi nga xamante ni du ragal tàngaay juggu la ñëw foofu nga xamante ni mooy di biir gouverneur tubaab yi nekk fi di bañ ko nodd di bañ ko tudd baatu yàlla sunu borom Seydil Hadji Malick ci stratégie bu mag ca xam-xam bu mag ba ca sell tag ak borom parasol bi tabaraka baaw ñëw ñu tëj zawiya bi ci wetu kër gouverneur di noddu fajar di wasifa fajar bu timis jotee mu noddu ñu julli wasifa lépp ngir jëmmi Seydi El Hadj Malick mbokk yi damay wax ni yéen ñi nga xamante ni yéen ay taalibi Cheikh yi yéen taalibi Cheikh Seydi El Hadj si dama leen wax ni leen gis ngeen foofu mooy fi nga xamante ni mooy zawiya bi Seydi El Hadj Malick si samp fii am na yeneen i bërëb yoo xamante ni incha allahu rabbi alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Makhtar bi dina fa dem ak yéen wan leen ko wan leen li nga xam ne mooy njàmbaaru Seydi El Hadji Malick fii ci Ndakaaru mbokk yi Seydi El Hadji Malick bi Ndakaaru dugg Ndakaaru yombul waaye nag gis ngeen rii boobu ma leen di wan mooy rii xamante ni fa la borom korekaar bi am foofu mooy kër borom korekaar bi jàkkaarloo fi nga xamante ni mooy zawiya Seydi El Hadji Malick si Ndakaaru mu ngi Ndakaaru mbokk yi fii la sax Seydi El Hadji si nag ñëw samp jàngale diine jàngale lislaam jàngale tariixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif tabarakallahu yar njaboot gi kenn ku ci ne mu jëlee la ca nga la nga nekkoon indi la ci diine indi la ci sunna gu sell saxal na ci jaamu yàlla sunu borom Seydi El Hadji li waa ji doon wax naan Mam Maodo dafa taal tali bi ba puus wan ñu yàlla wan ñu yonent bi tabarakallahu loolu la Cheikh Seydi El Hadji si def mbokk yi damay wax ni maam Cheikh El Hadji bu fekkoon danoo wan kenn du gis keneen ko ndax nag xam-xam bi ndax nag wilaaya gi ndax nag àgg ci yàlla bi mu àggoon ci yàlla bu nu wanoon bopp ñun ñi nga xamante ni sunu yàlla sunu sunu sunu sunu sunu àgg ci yàlla foor kon dinañ ko teg beneen place bu bokk rek bi mu nekk waaye tabarkalla daa puus wan ñu yàlla wan ñu yonent bi wan jàngal nu mag ñi nga xamante ni tabarakallaahu ñoo ko jiitu ci tariixa ci Ahmed ci Chérif waaye njàmbaarama tax ñëpp tàgg ñëw fekk ci ko fi moom jàngal ñu àddina mbokk yi koo koy Seex Seydil Hadji Malick borom parasol bi nga xam du ragal tàngaay jujju la waaye nag mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu foofu mooy juma ju mag yi nga xamante ni mooy grande mosquée bi nekk Ndakaaru tey dañoo demoon Ndakaaru alxaaji meegi ñu ak Mame Ndokh bi wan leen li nga xamante ni mooy suñu premier sortie a Dakar mbokk yi noonu lañ koy toppee incha allahu rabbi di ñaan képp koo xamante nii rek yaa ngi seetaan vidéo bi nga abonné ci sunu compte YouTube ngir jëmmi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ngir jëmmi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ngir jëmmi Seydina rek Malick jërëjëf